àndandoode ba ca gën mooy deyoo daal di disoo ni àndandoode ba ca bon mooy deyoo daal di teesoo sa kaddu bul ko àcc de ko xàcc di ko bàcc fu mu dal mu pàcc tàcc lu nooy nàcc lu banul fàcc STUDIO muy seen émission biir studio tey nag ñu ngi biir mille mélodies studio mille mélodies nag mooy dalal la group Alif groupe Alif mooy jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a group groupe de fii ci Sénégal tay nak di ngeen découvrir liggéey bi ni mu demee sur le prochain album bi Alif di préparer est-ce que hip hop lay doon wala la fam yeneen surprise yu ne ci biir loolu lépp dina leer kon nak on suit la flèche topp leen ma. man sit na ko basen yoro tu loko surprise dis la première surprise parce que nous lañ doon Alif mais nous ñu déggee qui ci son donc amna changement lu effectivement c'est que voilà ma ngi nuyu ñëpp ñu affaire donc il fallait qu'on apporte une originalité et c'est c'est une balade mélangée avec du rap pour indi lu xam nga donc, euh, on se cherchait, comme on dit, on se cherchait. Je dirais pas qu'on s'est trouvé, mais on a trouvé une partie de Alif et voilà, le dama bëggoon tey définir l'album, le style et le genre musical bi naka ngeen koy définir quoi. Bah, on peut dire que c'est de la variété, c'est du folk. On trouve tous les styles dedans, mbalax bang rap bang R&B baa ci biir reggae baa ci biir raga bi euh, salsa baa ci donc dañu bëgg ñëpp retrouver wu ci mag yeeg paa yi xale yi tout le monde quoi donc euh, c'est c'est c'est vraiment de la variété. d'accord est-ce que mën naa xam euh, le dernier album bi ngeen génnee ça date de quelle année. Mm, c'est sorti en 2004 et donc ça s'appelait Dakar Rap, Dakar Caméra Rap. Donc c'était une sorte de caméra qui se promenait autour de Dakar et voilà donc euh, les plus mieux visualiser on va rapper ça quoi. Donc c'était ça le concept. Mm. C'était en 2004. mbokk yi toujours ci seen euh, émission bi studio maa ngi toog ak euh, Baba Amdi Diawara nga xam ni moom mooy lu naan le maître des lieux borom mille mélodies ba pare taxawee fi ñaari taxawaay en tant que arrangeur mais en tant que aussi ingénieur de son ma bëggoon laaj Baba sa orientation ak waa Alif ci album bi ndax yow c'est voulu wala naka la demee ba changement am ci musique bi ñu gis ni beneen style la ñëwee tey quoi. Euh, bon merci tout d'abord ci. invitation bi xam invitation la tudd xawma li ñu set si quoi voilà donc euh, alif man xam naa ne ay euh, gel lañ yu doon def rap ma leen daan gis ci télé bi nii di leen dégg ci rajo yeeg yooyu quoi donc euh, ñu ñëw set si ma waxtaan ak man ne ma dañu bëggoon ñu def ko production ma ne leen amul benn problème mais il faut rek naa ñu am luñ ci yokk quoi xool pour gëna mëna plaire à tous les sénégalais eh. pour gëna yaatal cible bi quoi donc ya yaatal cible bi ki di yaatal cible bi moy def ci touti percu parce que ñun lool moy suñu cosaan touti def ci touti percu yok rythme bi touti def mélange quoi xam bon mais dama accepté won nak liggéey agniom. ak ñom parce que dama gis que ne ñom aussi dafa am ay luñu am luñu am moy man dama dégg si ñom ay fi yu nga xamné dañu am voix xam nga comprendre nañ am na comprendre dañuy jouer guitare tukki nañu jàngi nañ surtout ça donc ñoom bi may waxtaan ak yow ñoom ko sax donc ko dama dama jot a laajte bi ñu dañ quoi la preuve bi atelier piano ak voix donc effectivement loolu moo ci am quoi donc boo dégloo yi di nga vraiment c'est des filles yu nga xam elles ont compris quoi am nañu comprendre léegi euh, mamie bon li ma bëggoon xam mooy thèmes yi nga xam ne moom ngeen développé ci biir album bi parce que jot naa déglu y a une chanson d'amour entre góor ak jigéen kooku dafa fort ay émotion la quoi donc bëggoon naa xam en dehors de loolu est-ce que am na yeneen thèmes yoo leen développé ci biir yoo xam ni bon c'est social ak yooyu quoi. waaw bien sûr y a y a des thèmes sur l'amour mm, peut-être moo ci ëpp sax d'ailleurs ce qui est tout à fait normal euh, y a aussi euh, une chanson boo xamante ni on on critique par rapport au gouvernement, par rapport à la situation actuelle. La situation est très dure. Les gens ne mangent plus assez. Les gens ne dorment plus. Il y a trop de problèmes et tout. Donc, euh, comme on le dit tout le temps, comme on est la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche, on est obligé d'en parler parce qu'il y a des gens qui veulent pleurer, qui veulent crier et qui n'ont pas l'occasion de le faire. Donc, on est là pour eux. Comme il y a aussi euh, des thèmes comme une chanson qui s'appelle Bounce, qui veut dire bouger, bouger, quoi. En fait, on fait bouger les gens, on a envie de, de les déstresser un peu. Voilà quoi, de, de, les appeler à danser, de les inviter à danser, d'oublier les, les, problèmes. Voilà, Alif parle de, de, vraiment tous les problèmes, de tout, de tout, tout. On essaie de toucher le maximum de. voilà. le concept reste le même. C'est comme on dit, Alif, c'est attaque libératoire de l'infanterie féministe. Donc euh, voilà, tout ce qui touche la femme euh, nous, nous, touche directement. Donc il faut qu'on en parle. Et yakana Watch New York, Bobutamit. Donc c'est le même concept qui est là. New York, tu affaire, One, tu affaire aussi. Ça reste le même, quoi. boobu ngoon xam ci phase arrangement yi manam liggéey bi nan la doon demee nanam ñoom dañ doon ñëw ak seen ay mélodie seen ay harmonie wala yàlla jox ay harmonie ñoom ñu fekk si la ci nga door a dugal instrument yi par benn pour def arrangement yi naka la ordre de priorité liggéey bi doon demee quoi. bon comme comme ni ma la ko waxee rek quoi donc ñoom dañuy am na seen ay morceaux yoo xam ne ñoom dañ koo indi ñoom moom seen euh, indi seen mélodie seen ay textes seen façon de faire bon moi comme j'ai l'habitude de dire man je respecte composition nit ba nga xam ne dama koy déglu rek ni mu bëgg ma fekk si ko si xam nga mais aussi euh, ñu sollicité mam ne ma bu fekkee am naa benn morceau u ñaar bu ma leen mën a proposé ñu pour ñu dund leneen pour te dire que ne ñoom expérience bi ñu commencé am ci tukki yeeg yooyu moo leen ko yóbbee quoi donc ñoom ils ont compris que en Europe aux États-Unis ça se passe comme ça maintenant da ngay ñëw en dehors de euh, tes compositions tu dis à l'arrangeur propose-moi ben ou ñaari composition comme ça ma changer tuuti par rapport ak sama style quoi donc ñom dañu indi sen ay air sen ay texte ma fek ci leen mais aussi amna yo xamné euh dama ko indi ñom ñu fek ci moko quoi donc non la noonu la demee quoi noonu la demee. bon Myriam dama bëggoon xam. Euh, yéen ñi constitué groupe bi parce que xam ni vous n'êtes pas né dans le même milieu dans la même maison peut-être vous n'avez pas reçu la même éducation donc ku ne am na fenn fu mu jugee ak ay sensibilité boppam mais naka ngeen def pour daje yéen ñëpp boole yooyu yëpp taxawal ci groupe bu mel ni Alif di cartonné ni ensemble. Ouais, donc euh, moi j'ai commencé à rapper en 95 à l'école et donc en 97 il y a une amie qui est venue me demander de de de, de créer un groupe de femmes donc Mina Mina le. Donc, euh, Tile de créer un groupe de femmes qui, en 97, donc euh, c'est notre premier manager qui nous a mis en rapport avec Omi, présente nous Omi. Donc, septembre 97, le Alif naît concrètement. Donc, non, euh, non, non, non, nous sommes de 99, nous avons notre première cassette, ça s'appelait Victime. Ensuite, en 2003, nous avons une CD international, ça s'appelait Da Camerap ensuite en 2004 nous génnee ko en CD mais 2003 Mina quitté groupe groupée parce qu'elle s'était mariée donc elle a été remplacée par Ndiaya donc 2004 2005 on travaille avec Ndiaya et donc aussi Mamino, rejoint le groupe quoi parce que officiellement Alif euh, groupe de trois filles quoi donc pour tourner international, il faut qu'on reste trois quoi parce que yaakaar naa ne Oumy buy woy man mun ma fa nekk pour assurer kër yi mooy loolu daal donc il nous faut ça quoi. Mm. Mm. bon mami yow bon kon yow yaa mujjee ñëw rejoindre gars yi yaay caatu groupe bi quoi voilà léegi ma bëggoon xam yéen ñi conçu groupe bi maanaam seen côté parce que mun leen nuroo tempérament yéen ñëpp xëy na kii moo gën a xumba kii moo gën a noppi kii moo gën a waa est ma doon présenté waa Alif looy wax. Bon, je me présente présenter Alif je dirais qu'il y a une timide euh, une fausse timide <laughs> mooy Oumy moom mooy de lettres yi une adressé président a une adressé copine Bon, bon y a encore ni peut-être son apparence trompe les gens Il y a elle est dure elle est voilà caractérielle alors que peut-être ku nekk ak li ngay bañ ku nekk ak ku euh, en fait ku a ak bëggul nit mm-hmm. mais moi, en quelque sorte lawbe au groupe B elle anime aussi <laughs> bon on peut dire euh, je sais pas ni de présenter beaucoup. voilà maintenant je suis là à faire l'ambiance parce que beaucoup on aime tout le temps d'aller une ambiance nice voilà. voilà donc man <laughs> il faut que man man pour yar ak <laughs> yi